أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه نيجي الأربعين النووي حديث السابع والعشرين حديث نيار فك جروم نيار xadis bi am na ñaari riwaaya yu bokkut benn bi ñu jëlee ko ci nawaas nawaas bun samaan benn bi ñu jëlee ko ci waabisa bun maabad ani nawaas jëlee nañ ci nawaas bun samaan doomu samaan radiallahu anhu yàlla na yàlla gërëm ko ani nabi mu jëlee ci yonent bi salla yàlla na doole ko allah yàlla alayhi si moom wasallam a doole ko musal nawaas bun samaan moo nettali jëlee ci yonentu xaal yonentu ne albirru mbaax mooy lan mu ne xusnul xuluqi mooy rafet jikko yonentu bi yàlla daf ko joxoon li ñu tuddee jawaamiul kalim jawaamiul kalim mooy lan mooy baat yu gàtt waaye ëmb maanaa bu yaatu yonentu daf ne mbaax mooy rafet jikko rafet jikko sa digganteeg eh, mbindéef fi rafet jikko sa digganteeg yàlla loolu mooy mbaax dégg nga mu ne wal ismu bàkkaar maa mooy nga xam ne xaaka toq na fii nafsika ci sa bakkan wa karixta nga sib an yettalia mu yër ali ci moom annaasu nit ñi bakkaar mooy li toq si sa bakkan bi mooy li nekk ci sa biir te bëggoo kenn xam ko loolu mooy bakkaar bëggoo kenn xam ko nag bu koy wax mooy bëggoo nit ñu am ngëneel nit ñu for ñi yëg ko mais ñi nga xam ni daanaka yàlla xam doy na ñu taxul ñuy wax parce que léeg-léegi nit di def dara nëbbut ko ñenn ñi waaye nag bëggul kilifa yëg ko bëggul ku baaxit gis ko bëggut kuñ xormaal gis ko ci loolu loolu mooy bàkkaar li ngay nëbbu rek baaxut su baaxoon doo ko nëbbu walla boog soo ko nëbbee it bu ko nit ñi gisee doo am benn gàcc sa yoon nekkut ci Hmm? kon yonentu jàngal ne mbaax boo ko bëggee xamul ne sa jikko <laughs> bakkaar mooy li nekk ci yow nga bañ nit ñi gis ko waaw muslim muslim moo ko solo ñaari xadis yi daanaka benn lañ niroo nañ waan waa bi sa bun maxbat jëlee nañ ci waa bi sa doomu maxbat radiyallaahu anhu yàlla la gërëm xaala wax na ne ataytu dikkal naa rasulallah yonent ci yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla dool xewatu musal ko fa qaal yonent bi wax kii moom balaa muy laaj ci la ko yonentu wax lan ngay laaj beneen beneen mbir la woon moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku yéeme la woon waxuma la sax moom waaye xeetam rek ñu yéeme rek karaama yàlla defaroon yonent yi jiitoon yàlla defal na ko xeetam nit nit mbaamam dee na mu ñaan yàlla na ko yàlla dekkilal sama mbaam mi mbaam mi dekk ci xeeti yonent bi la bokk abu muslim alxawalaani sànni nañ ko safara safara si lakkut ko comme ni ibrahima amoon mu dem ci omar ibnul xataab ba ko omar gisee ne maa ngi sant yàlla ba nga xamee ne yàlla defal na karaama kenn ci xeet yonent bi karaama gu dëppoog mojisa gi mu defaroon yonent yàlla ibrahima kon yonent bi xeetam rek ñu xéeme lañ waxuma laak moom waa bi sa bun maxbat dafa ñëw radiyallaahu ko yàlla gërëm nee na ataytu dikkal naa rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam ne ji te dikk nga tas tasalu di laaj anil birri ci mbaax <laughs> waa bi sa waa bi sa lay wax waa bi sa bun maxbat dafa ñëw yonentu ne ko dangaa ñëw pour laaj ma lan mooy mbaax moom waxagul sax yonentu ne ko dangaa ñëw pour laaj ma lan mooy mbaax qultu ma ne ko naam waaw mu ne ma ne ko waaw loolu laa la bëgg a laaj xaal yonentu ne istafti laajal xalbaka sa xol yonentu ne ko laajal sa xol loolu nag du ñëpp ñoo ko man ñëpp ñoo fa yegg benn muy wax ak borom xam-xam yu mag yi yi nga xam ne ñoom xam nañ lislaam bu baax a baax lu seen xol nanguwul rek baaxut dégg waaye li ma jàpp man mooy nit fi yàlla yi lay wax ak yàlla yi parce que nit mën naa nekk borom xam-xam bu mag xolam nanguwul dara nga ne loolu baaxut te pourtant lu xolam bañ noonu am na beneen borom xam-xam bu mel ni moom xolam nangu na ko léegi da ngay gis. wuutee day am ci diggante borom xam-xam yi kii ne lii dafa xaram kii ne xaramut kii xolam bañ na ko kii xolam nangu ko te pourtant ñoom ñoo ñëwee borom xam-xam yu mag la kon xadis bi boo xoolee boo xoolaat dangay gis ne xadis bi dafay junj li Cheikh Tidiane di wax am na nit yàlla yoo xam ne ni ñoom xoolatuñ ci téere su amee. masala mu leen dikkal seen xol la ñuy xool buñ gisee mu leer nañ ñu xam ne lii lu war la bu xawee leer ñu xam ne lu luñ sopp la bu lëndëmee tërës ñu xam ne lu xaraam la bu xawee lëndëm ñu xam ne luñ sib bu leeru lëndëmul ñu xam ne lu dagal la ñoom foofu lañuy xoolee man nag dama jàpp ne lu seen xol nanguwut bañ ko bu baax loolu lu xaraam la lu seen xol dégg nga nangu bu baax loolu lu war la xol bi bu ko nangoo nank rek nangu gu yem rek loolu luñ sopp la bu ko sibee sib gu yem loolu luñ sib la su fekkee xol bi nag bañut nanguwut loolu mooy lu dagal loolu ñëpp fu mën a yegg wala yàlla yegg foofu nag ñoom duñu wutee ci loolu waaw yegg foofu nga xam ni la nekk ci pee yàlla ba la ñuy gis ñoom moom luñ ne la lu war la rek loolooy lu war kon hadis bii dafa mel ni ñoo ko moom teewul yi borom xam-xam yi nañ ko ñëpp lay wax waaye borom yu mag yi lay wax mag yi ñoom seen bopp kii dafay bañ dara kii bëgg dara kon ñoom laaj nañ seen xol waaye yi nekkul benn hmm? mais wala yàlla lay wax man doon laa jàpp mooy li yàlla wax ne yaa ayyuha alladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum gëm yàlla bu ngeen ragalee yàlla yàlla defal leen furqaan kon furqaan da ngay ragal yàlla ba pare door koo xam furqaan du ragal yàlla da ngay ragal yàlla ba pare door am furqaan furqaan mooy leer gi nekk sa xol nit ki di ci xàmmee diggante dëgg ak caaxaan leer googu ku nekk sa xol te muy dëgg ma doo doo jëreeti masala ci téere yi sa xol ngay laaj kon xadis bi dafa am borom lu jar a bàyyi xel la moo tax firi ko sa yombut istafti qalbaka laajal sa xol albirru mbaax maa mooy la nga xam ne itma anna dal na ilay jëm si moom an nafsu bakkan watma anna mu dal ilay jëm si moom alqalbu xol mu ne ko mbaax mooy la nga xam ne sa bakkan dal na si sa xol bi dal ci xol bi d'accord na ko bakkan bi d'accord na ko yonentu ne ko loolu mooy mbaax mais du ñëpp mais wëli yàlla boo xam ne xegg na ci yàlla foo xam ne lum nangu lu xaatiram nangu rek loolu li wér kooku lu xaatiram nangu mooy lu baax lu xaatiram nangul mooy lu bon dégg naa si oustaz Baraam Diop nee na bàyyi mos ko wax ne ko bul wuuteeg sa xaatir ba mukk soo wuuteeg sa xaatir rek da ko rëccu kooku kon niru ne yegg na fi ndax lu ñëw ci rek loolooy lu wér ñu mel noonu du ñëpp nag du ñëpp dégg nga xaalis bi dëggal na ko ay alxuraan jooju dëggal na ko ñoom it si jamono dëggal na ko Abdou Aziz Dabaax waxuma dabaax mu senegal jële moom it wali yàlla bu mag loon am yàlla gërëm leen ñoom ñëpp Abdou Aziz Dabaax mu mag moom yàlla bindoon na ko muy koo xam ne daawul jële xam-xam ci téere Dabaax mën nañoo wax ne jàngutoon moom jàngutoon waaye boo ko indilee ay alquran danaan lii alquran la xadis yonentu mooy lii xadis la am na leer gum koy gisee si gémmiñ ki booy wax rek moom yàlla ngi koy wan furqaan googu mooy leer googu lay xool rek xam lii lan la masala moo ko laaj mu tontor te pourtant jàngut hmm? que yàlla mayoon na ko furqaan naka noonu it dégg euh, masal yi demee noonu bëri na mooy eh, yaakaar naa histoire boobu yàgg naa ko nettali mooy wëli boobu ñu laajoon ku bàyyi saar ndax danga ko si jootal wala doo ko si jootal mu ne saar ku ko bàyyi doo ko si jootal boo ko si jootalee julli ga jàngu dara nag dañ koo laaj mu tontu fekk mu ngi ànd ak kenn ci jàngkat yi waaye ji ko doon laaj mu xam xam na ne sëriñam sëriñ bu mat la waaye mu ngi ànd ak beneen jàngkat boo xam ne moom xamul sëriñ bi jànkar bi ne ko sëriñ bi xamul dara parce que Malick wax na lii téere yi wax na lii saar ko ko bàyyi danga koy sujjóotal sa sëriñ bi naan saar ko ko bàyyi doo ko sujjóotal mu la nekk ci yàlla laa laaj laaj nekk ci téere moom lim tontu dégg mu ne ko sëriñ bi lii mu tontu mooy mooy ngéem shaafi mooy saar ku ko bàyyi ko su yuutal suñu sopp la tey nettal nañ ko jëlee ci maalik te moom lu nekk ci yàlla la mu tontu ba pare mu dëppoog li shaafi wax dëppoog li Malik wax bal sax mu dëppoog ay hadis yu war ne saar mën nga koo ñàkk jàng dara nekkul hmm? dafay gis nga ñu jànguñ waaye furqaan lañ am kon hadis dëggal na ko ay alquran dëggal na ko jamono dëggal na ko taarix dëggal na ko ñooñu ñoo moom xaddis bi dile nag ñun ñu ngi koy firee borom xam-xam yu mag yi waaye boo seetloo ba seetlu dañuy gis ne ñoom seen bopp dañuy daakoo dara seen xol seen bakkan dal ci te keneen gërëmut ko te ñoom ñaar yëpp même degré rek dégg nga wala ismu bàkkaar maa xaakam mooy la toq fi nafsi si si bakkan wa taraddada mu deng déng fi sadri ci dënd wa in aftaaka dina ubbee na la annaasu nit ñi wa aftuuka te ñu ubbee la xoolal yonent wax ko bakkaar mooy li nekk sa bakkan nga di ci deng-deng sa dënn bi daal sa xol bi d'accord ci nga lii daal def ko bàyyi ko nee na loolu bàyyil bakkaar la nañ la naan nii la ak nii la ak yonent fii daf ci wax naasu aftuuka dina nit ñi ubbee nañ la maanaam liñ la mën a andil ndem d'accord ci rek bàyyi loolu xam nga ne du ñëpp ko moom ñi nga xam ne jànguñu moom waxuñu leen ñooñu moom mën nañoo bañ dara seen xol nangu ko fekk mooy dëng mooy njub wala dëng la sax wala njub la waaye ñoom ci borom xam-xam lañu jëlee loolu amma amma borom xam yu mag yi parfois ñu bañ dara dégg nga waaye keneen ku mel ni moom it bëgg loolu léegi looy wax loolu baax la wala bon la bàkkaar la. pourtant kii ak kii ñoom ñaar ay nawle lañ wala kenn ki sax moo gën a foor kenn ki kii bëgg dara kii bañ ko lan lañ wax comme Malik ak Shafi moo tax xadis boo xoolee xool da nga xam ne waxut ak ñooñu wëllu yàlla yi lay wax wëllu yàlla bu xol bi jàppee dara loo ko mën a indil fatwa boo ko mën a indil na ko tàj fële parce que loolu mënu indi fatwa bu wuteeg moom te muy wér waaye kudul kooku mën ngaa jàpp dara ñu indi la fatwa bu ne nga bañ parce que ba léegi gisagoo lu daal sa xel d'accord waaye nag loolu mën naa ñàkk nekk bàkkaar parce que que la indil fatwa la wax mën naa mooy mooy njub su ngeen seetloo xadis bu baax da xam ne dafa am ñu ko moom xadisun xasanun xadis bu rafet la rawaynaahu solo nañ ko fii musnadi imaamay ci musnad ñaari imaam yi ahmad bun hanbal wa daarimi bi isnaadin ci sanad xasan bu rafet su ko defee loolu lay xadis bi di wax ñu ñëw ci yaatal gi lim njëkk wax mooy mbaax mooy rafet jikko jikko nag yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko gën a rafet ñëpp xadis bi ñëw na ne kaana nabi sallallahu alayhi wasallam ahsana naasi xuluqan yonent bi moo gën a rafet ñëpp jikko hadis boobu ñoo na ci Buxaari Muslim Abu Daawud Tirmisi yonentu moo gën a rafet ñëpp jikko kon jikko ji rafet koo ci roy yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi du yaay xool rek li nit ñi bëgg rek nga jikko ji rafet déedéet jikko ji rafet mooy la yonent bi nekkoon paalu neex nit ñi nit ñi moom léeg-léegi mbon neex leen léegi mbaax neex leen waaye jikko ji rafet mooy lu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkoon Safiya bintu Xuyay soxna yonent bi la daan na wax ne gisuma ku gën a rafet jikko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla tagal ko boppam ne ko wa innaka la ala xuluqin azim yaa gën ñëpp jikko moo gën a kawee ñëpp jikko ndey Aïchatu radiyallahu anha laaj nañ ko lan mooy jikko yonent yi mu ne kaana xuluqu alquran kooku ñëw na si saxiwul muslim nee na jikkoom moo doon alquran luy loolu mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam da daan li alquran digle mu def lum tere mu bàyyi mboolem jikko yu alquran tagg tagg ña ko jikkoo yonent bi meloon na ko mboolem jikko yu alquran ŋàññ ŋàññ ña ko jikkoo woon yonent bi bàyyi na ko su ko defee kon boo bëggee roy yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa santaane nga nekk ci tere nga nga bàyyi ko loolu moo doon jikko yonent bi dégg di jëfandikoo ndigal alquran yi di bàyyi tereem loolu mooy bindeeram mooy li ko yàlla bindee moom mooy jikko bu alquran digle yonentu def bu alquran tere yonentu yonentu bàyyi dégg noonu la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam am kersa bari teraanga jàmbaar mën a jéggale lawet mboolem jikko bu rafet daal mu ngi ci moom boo amee jikko yu rafet yooyu rek baax nga loolu mooy mbaax mais du julli yu bari du ràkk yu bari du nangam gu bari dégg nga tawraat melal nañ fa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne yonentu la boo xam ne ni dafay bàyyi léppam yàlla nekkutoon ku tàng xol nekkutoon ku xiis nekkutoon ku doon yuuxu nit ñi ci marché yi boo ko defee lu ñaaw du ko fayee lu ñaaw sallallahu alayhi soo ko defaan lu ñaaw moom lu rafet la ko doon fayee xiisutoon tàngutoon daaw yuuxu nit ñi bëriwutoon coow waaye da daan jéggale di jëllale balaa ko yàlla jël ci tawraat wax nañ ne balaa ko yàlla jël dana jubbanti diine ci ñépp di wax laa ilaha illallah ña gumbahoon seen bët ya gis ña taxoon di dégg dégg nga ña xol yi xol yi tëj woon mu ubbi ko yàlla dugg ci ñuy gis dëgg di dégg Muhammad sallallahu alayhi wa ci tawraat kon boroom jikko ju rafet la jikko ju rafet jooju nag mooy mooy mbaax rafet jikko nag ñaar la rafet jikko ànd ak yàlla ak rafet jikko ànd ak jaamu yàlla yi lan mooy rafet jikko ànd ak yàlla mooy nga nangu attee sharia yi lu sharia tëral gërëmal d'accord bu sharia tëral benn atte nga xat ci yow ne lii daal moom maa ngi koy def rek waaye neexul ma yow rafetoo jikko lu sharia santaane daf lay neex sa xol ba pare nga di ko jëfee loolu mooy rafet jikko ànd ak yàlla bu la yàlla digalee julli wala wala xoor wala loolu sa xol daf ci ubbeeku nga gërëm ko d'accord ko ba pare di ko jëfee kon loolu mooy rafet jikko yàlla mooy atte yi na la neex sa xol su ko defee nga di ko jëfee tamit moo tax mbaax yombut de gis nga àddina nu mu gàttee waaye nu mu yaatoo amul benn atte sharia bu lay naqari mais yëpp lu mel nga di ko jëfe loolu mooy rafet jikko ànd ak yàlla rafet jikko ànd ak nit ñi nag mooy nga jëfante ñoom jëfante bu rafet bokk na ci nga dindil leen lor bu leen lor dalee boo ko mënee dindi dindi ko ku la wax na la nag dindi leen nit ñi lor wax na la bu leen lor kon yow waroo leen lor mooy li yonent waxoon jullit mooy koo xam ne jullit ñi mucc nañ ci làmmañam ak ci loxoom hmm? naa si imaam Cheikh boo gënee mooy koo xam ne nii ma ngay jëriñ jullit ñi ci làmmañam ak loxoom mooy ki gën a baax ki baax mooy koo xam ne lorul nit ñi ci làmmañam lorul nit ñi ci loxoom waaye mu indi ci maanaa bu mu ne ki gën a baax mooy koo xam ne mu ngay jëriñ nit ñi ci làmbañam ak ci loxoom wax na dëgg hmm? ñaareel ba it nga muñ seeni lor loolu bokk na ci rafet jikko ànd nit ñi mooy lor yi ñu lay lor nga muñ ko waaye yow kenn du la lor kenn du la lor loolu baax loolu loolu du rafet jikko man du ma tooñ kenn waaye ku ma tooñ ma jëflante koog yow jikko jaa di sa rafet rek dégg nga du kenn waaye ku ma ma jëflante kook yow kooku jikko jaa dese rafet dégg bokk na ci rafet jikko kanam gu ubbeeku dégg nga kanam goo xam ne yaatu na ubbeeku na koo dajeeg rek mu ñeme la ndax kanam gi ubbeeku na mu ngi ree waaye di di ñàngal kanam rek kooku baaxul dégg nga loolu bokk na ci rafet jikko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag lu jikko ji rafet rafet daf ñaan yàlla ne yàlla yàlla nga dolli sama jikko ji rafet ji doon muslu yàlla ci jikko ji ñaaw daf daan ñaan yàlla yàlla yokk jikkoom ju rafet daan muslu yàlla ci jikko ju ñaaw ànd ak ne moo gën rafet ñëpp jikko te mu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla yokk ko jikko ji rafet loo xam ci yow mi nga xam ne yow sa jikko ji matagu yow dégg nga kon ku jikko ji matut rawatina jëlee nañ ci Aïcha xadis boo xam ne Ahmad and na ko yonent ne allahuma kama ahsanta xuluqi wala boo kama ahsanta xalqi fa ahsin xuluqi yàlla ni nga rafetalee sama mbind yàlla nga ko ko rafetalee sama jikko loolu la daan wax moom dafa rafetoon sallallahu alayhi wa sallam boo ko xoolee rek dafa rafet ba jégg doy daal waaye daan wax ne yàlla ni nga rafetalee sama mbind yàlla nga ko rafetalee sama jikko kon bind mi rafet na woon de ah, bind mi rafet na de bu demee banaan ni nga rafetalee sama bind yàlla nga ko rafetalee sama jikko mbind mi rafetoon na waaye taaru taaru taaru taaru lu yàlla xam doy na fekk jikko jaa gën a ñaaw kooku rafetul dégg kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danaa ñaan yàlla jikko ji rafet daan na wax ne allahuma inni audu bika dégg nga min ashiqaaqi wa nifaaqi wa suui l axlaaqi yow yàlla maa ngi muslu ci yow ci wuutee maa ngi muslu ci wuutee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam danaan muslu ci wuutee wuutee baaxut moo indi fitna yépp danaan muslu ci muslu ci nifaaq mooy naafiq yàlla nañ ci yàlla musal waaye dara jarul ko nit nekkal ci li nga nekk rek parce que nit ñi ama mënaluñ la dara yow yaay def soo bopp bi rek ne nit ñi mënal nañ la dara mën nañ laa jëriñ wala mën nañ laa lor waaye mënuñ laa jëriñ mënuñ laa lor kon li nga mel mel ko rek hmm? mais looy wane lu nekkul ci yow loolu mooy ni fàq nit dangay wane li nekk ci yow rek mu jeex tak hmm? yàlla li nekk ci ñun baax maa ngi muslu ci naafeq yonentu lu mu baax baax danaan muslu ci naafeq moo tax dee leen ci muslu yàlla parce que yàlla lu ko neex mu teg la loo gëm-gëm yàlla ya bu neexee yàlla nga xëy rek nekk xéeféer gëmatoo yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak luy kawtee fi leer leer bu neexee yàlla mu xëy doo ko gëm moo tax nit yàlla yi sax ñoom liñ gënoon a ragal mooy xéeféer noo gën a jege yàlla gën a ragal sa xol bi yaa ngi muslu yàlla si yàlla na tool ak kufru wóorul de danaan muslu yàlla ci jikko ju ñaaw moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam su ko defee te moo gën ñëpp loolu daf lay wan importance su jikko ju baax ak bon ak jikko ju ñaaw ak daw gi ko jullit bi war a daw ak fu mu mën a toll foo mën a toll yonent moo gënoon ci nit ñi waaye daan na wax ni ki gën mooy ki gën ci waa këram ci njabootam dégg nga moom nag moo gënoon ci njabootam gënoon ci jaamam ci wax ak ñoom wax ju rafet di ànd ak ay soxnaam àndoo bu rafet di leen teral jox leen cër respecté leen comme nu ko waxee xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli ki gën ci yéen mooy ki gën ci waa këram te man maa gën ci sama waa kër kon rafet jikko bokk na ci nga nekk ak sa waa kër nekk bu rafet say soxna maanaam ak say doom ak ñu nekk ak yow dégg nan la yonent doon dundee waa këram mooy def loon rafetal jëmee ci ñoom daf loon yërëm njabootam di leen feeñalal ak mbëggeel di kaf ñoom lu muy baax baax lu muy kawe kawe daan kaf ak waa këram sallallahu alayhi ndey Aïchatu radiyallahu anha yonentu bañ na ko ba daawul woo turam mu yegg comme lii nit ñi def nii xam nga léeg-léegi dañuy gis jigéen joo xam ne du jaar ci turu borom këram daf koy wutal beneen tur wala góor goo xam ne du jaar si turu soxnaam da koy wutal beneen tur mais loolu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko njëkkee ak keneen koo mën a doon yonentoo la gën a foor foofu te moom ndey Aysatu da daan changé tur bi ndax rek mu kontaan. léegi nag bëri na ñoo xam ni ruus nañoo wooyee seen soxna turu wu bokkut ak turam loolu loolu du kers benn muy rëy wala muy ñàkk xam yonentu daan wax yaa ish dagg taaga yaa ish dagg taaga sallallahu alayhi wa sallam pour kontaan loo ko wala mu ne yaa xumayraa yow ndaw su xonq si ndaw su xonq si xam nga Aïcha la tudd mu ne naan ko yaa Xumayra wala mu naan ko yabnata siddiq yow doomu Aboubacar Siddiq yabnata siddiq noonu la ko doon wooyee lu tax muy def loolu pour gën koo jege ak respecté ko ak wan ko ne ko xam naa sa gëdd ak sa daraja dina maa la gën pour nit ki nekk ci jàmm. parce que bu fekkee te ne rafet nga jikko koo ànd ak dafa war a nekk ci jàmm te jigéen tànk yëgul ne bëgg nga ko rek mu ngi ci fitna moom loolu la war a yonent noonu la daan dundee ak ay soxnaam daawul jaar seen tur te it daf laa leen dimbale si seen mbiru liggéey Aïchatu laaj nañ ko yonent sallallahu alayhi wasallam nan la daan dundee ci biir kër gi mu ne yonent bi man ak moom daan nañ bokk benn ndab di sangu mooy gaa yi def dem ci piscine sangu ak sa soxna yonentu daf ko doon def waxuma piscine yooyu parce que amuñ ko waaye benn ndab yonentu nekk si biir ndey Aysatu nekk si biir ñoom ñaar ñi bokk di sangu mu ne fa yaqulu laha da'i lii wa taqulu lahu da'i lii kooku muslim andi na ko xadis boobu muslim andi na ko ñoom ñaar dañuy bokk si benn ndab di sangu yonentu di ko laal Aysatu naan ko bàyyi ma Aysatu di ko laal yonentu naan ko bàyyi ma xam nga loolu yaakaar ne kii àddina da koo ñor fekk walaay ñoru ko mais kum ànd nga war a nekk ci jàmm hmm? bu benn kilifa defoon gars yi nag kilifa gi moo bon xoolal mook soxna si ñëw bokk di sangu ma naan ko bàyyi ma bàyyi ma <laughs> ndeysaan wax ma nag di sangu foo xam ne ñëpp lay gis loolu moom xaraam yéen a daaw def loolu sallallahu alayhi wa sallam waaye moog Aïchatu daal bokk benn ndab di sangu. naa ci naan ko bàyyi ma yonent naan ko bàyyi ma pour kaf rek kooku muslim andi na ko yonent daan na gis jigéeni ansaar saari ñuy fo ñuy fo mu jël Aysa tunqum ko teg ko ci kawam muy seetaan ba mu ba mu ba doyal mu door ko wàcc mu door ko wàcc hmm? loolu lépp pour xam ne jigéen la. Hmm? pour xam ne jigéen la loolu bokkoon na ci nooy jikko ak rafet jikko ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jigéeni ansaar yi buñ daan fo daraan tunqum Aïchatu bàyyi ko mu leen seetaan loolu nag mooy foo xam ne xaraamul nag laa wax waaye waxuma fooyee xaraam yi nga bàyyi soxna yi ñu si te lépp lu Aïchatu bëggoon te aayut rek daf ko daan dana dana dana ànd ak moom ci loolu du ko aaye mukk lu garaawut lu mu bëgg rek te garaawut da ko doon bàyyi mu def ko su Aysa jëlaan benn ndab naan yonentu sallallahu alayhi wa kenn du moom daraan jël pot boobu xool fi Aysa du teg gémmiñam mu naanee foofu bu Aysa du naanee ba pare yonentu day xool xool fi Aysa du teg gémmiñam buy naan teg rek mu jël pot bi moom it xool fa mu tegoon gémmiñ mu naanee foofu pour seddal xolam pour wan ko ne ko seexluwut ko moo tax saa yoo jàngee taarix yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xeeb sa bopp parce que royukaay la boo xam ne ku nekk war nga ci roy bu Aïcha lekkoon yàpp ba taaj seex ba taaj dafay jël bii Aïchatu jël lekk moom lay jël te fi Aïchatu tegoon gémmiñam mu lekk foofu mu lekk foofu wuteeg koo xam ne bu soxnaam naanee ci pot mu ne ko hee fompal fompal wala tànqal ma ci beneen pot am daaw def loolu sallallahu waroo wan sa soxna benn yoon ne ko seexul naa la loolu loolu rek lay teg daan na wéedu ci kaw Aïchatu di jàng alxuraan fekk bopp baa ngi ci kaw Aïcha léegi-léegi sax mu amee mbërëg te teewul euh, daraan wiiru ci kawam du jàng alxuraan fekk mu ngi yore mbërëg dégg nga léegi mu jox ko bopp bi mu di ko peñel fekk mu ngi ci jaamu yàlla sax dégg nga yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam weg gi mu wegoon ay soxnaam dem na ba nga xam ne soxna si bu amee mbërëg yore mbërëg daf ko doon digal mu sol tubéy bu mu mu mu takk boppam daal mu séq ak moom li mu war a séq ak moom fekk mu ngi yore mbërëg maanaam daawut sori ay soxnaam sax bu ñu yoree mbërëg foofu la ci borom xam-xam yi jëlee nag ne kon jigéen ju am imb rek li ci bon mooy mooy siq ak moom ci biir sawukaay bi waaye lu dul loolu dagan na mais ci ngërëm maali moom ji mbax bi ba ci om bi dañ koy aaye parce que kenn melul ni yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga jàll fekkee sa xaal nag mel na noonu dafa mel ni garaawut ci yow yonentu daan na woor di dégg nga nekk ak soxnaam waxuma la joteeg moom euh, nu ma ko mën a waxee sax nu gën a rafet daan na woor daal di nekk ak soxnaam waaye nag mu mu seq ak moom dara dégg moom hmm? moom mooy moom gën a daan na woor te du tax mu sori ay soxnaam sallallahu alayhi wa sallam dégg nga kon yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi nii la nekkoon ak waa këram boo xoolee boo xoolee ba xoolaat ko da gis ne ku oyof la woon kon ku oyof la woon loolu rek nga ci jànge dana leen bàyyi sax ñuy foo fo moo xam ne nii xaayit dégg laaj nañu Aïchatu nu mu laan liggéeyee ci këram mu ne moom moo doon liggéeyal waa këram da daan liggéeyal waa këram luy loolu mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da daan liggéeyal waa këram luy loolu su doon tey nga ne day ñëw jàppale leen ci fobeere bi ci misaal wala boog ndugg ma wala yu demee noonu liggéey la waa këram ba julli jot mu dem julli ci moo daan ñaw yéreem daan ñaw yéreem day nekk ci kër gi yére bi xotteeku mu di ko ñaw tey koo dem kër goo dem gis so gis borom kër gi di ñëw yére yi nga ne soxna si dafa sàggan loolu ngay wax yénoon su daan ñëw yéreem di defar dàllam dàll bi la yàqu mu toog di ko defar ci biir kër gi luy góor ñi di liggéey seen kër yi daf ko doon liggéey sallallahu alayhi wa moom noonu la doon dundee waa këram daan na wax ne eh, dundale gi gën a màgg ëpp tiyaaba mooy li nga def si sa kër alal ji nga jël jox ko sa kër moo ëpp tiyaaba bi nga sarax miskin yi sallallahu alayhi wa demoon na sax bay course ak ndey Aïchatu xam nga course ndagge daw Aïcha radiyallahu anha xadis bi ahmad andi na ko nee na mos naa génn ànd ak ci biir ñuy tukki fekk man boobu xale bu ndaw la sama yaram bi diisagut yonentu wax saxaaba yi dem leen ñu dem ñu jiitu kon nag wax dëgg yàlla am na loo xam ni waroo koo def ci biir nit ñi ndax leen dem leen su ko defee ñoom ñu dem moo Aysha na ko kaay ñu course ñu ndagg xam nga course ñu ñu seet ku dàq daw eh, ñuy daw ay satu jiitu ko yonentu noppi waxu ko dara mu ne mu xaar ba ba ma am yaram ba sama yaram diis nga xam ne ni bu may daw mënumaa daw bu baax ñuy tukki rek mu wax gaa yi jiitu leen ñu jiitu mu ne ma kaay ñu course eh, bañ coursoo mu jiitu ma ba ma jiitoo commencé ree ma ne ma xaasa bi tilka maanaam fayeku naa xaasa bi tilka noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ooye feewoon benn bi soxnaam suñu wax Safiyatu radiyallaahu anhaa mos naa bëgg yéeg ci gërëm gi yonent su jël tànkam teg ko ci ne ko tegal sa sa tànk sama kaw pour nga yéeg pourtant mën mën na ko mën naa yéeg te te du teg tànkam ci kaw yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais oyof gi mu oyof dafa wax soxna si ne ko da ngay dëgg sama kaw nga yëg loolu diis na ko moom moom moom moom bëggul dëgg ci kaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dina yonent bi may na ko ko mais yonent bi moo ko sant loolu daf lay wan ni mu respecté woon ay soxnaam ak ni mu bëggee woon dem na ba Xadijatu radiyallahu anha ba mu génnee àdduna yonent su daan rey gàtt di ko jox ay xaritam moom du yam ci bëgg soxnaam mais day bëggaale xarit ya daan rey gàtt di yónnee xaritu Xadija yi Xadija génn àddina ba pare ndey Aïcha sax da daan fiir ci loolu moom da daan fiir ci li yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di defal Xadija te génn àddina ba pare xaw ma kuy am ngor waaye boo ñëwee ba ci yonent bi sallallahu wa sallam fa fa ngay teeree. su ko defee noonu la meloon ci waa këram loolu lenn la ci rafet jikkoom ci biir këram moom yonent bi sallallahu waaye noonu la maandoo woon ci diggante ay jabaram te it fiiraange gi nga xam ne daan na xew ci diggante jigéen ñi daf ko daan muñ sallallahu la wa sallam parce que nag maa léegal lenn jigéen kenn du ko jàppee fiiraange dañuy wax rek mais ñoom ñëpp fiir mbindam yàlla la mënuñ ci dara sax ñoom bu la yàlla bindee fiir loo ci man kan moo gën a baax saara saaratu soxna ibrahima alayhi salaam kenn gënu koo baax moom moo jël xaajara may ko ibrahima bu pare fiire ko fiire ko ba nee na génn moom njabootam hmm? moo tax jigéen ji wan la mbaax ak ay takkal jiw ak nangam ak nangam yépp dara <laughs> doon fiir rek danañ fiir rek yàgg yàgg moom dana woon fiiraange mais fiiraange gi yow yaa koy dindi nànk-nànk ndax seytaane la waaye nag il faut nga faxmu ko ci fiiraange gu yonentu daf daan comprendre ay soxnaam ci fiiraange gi mais ku màndaloon nag Aysatu ku fiir la radiyallaahu anha te moo gën si jigéen ñi ci juróomi jigéen yi gën si jigéen ñi ci la bokk wax nañ ne benn bis yonentu dafa nekk ak ndey Aysatu radiyallaahu anhaa yenn xadis yi tudduñ tur yi mais yenn xadis yi tudd nañ ko su ko defee Ummu Salamatu defar benn ñam yónni ko xale bi ne ko demal yóbbul ma ci bi sallallaahu alayhi wa sallam soxna yonentu ko defee xale bi jël ñam wi indi ba ci bunt bi ba mu ñëwee ba Aysatu xool rek xam ne ñam lay indi fële la jóge mu dóor palaat bi mu daanu toj su doon yow lay wax da ngay kalaate da mer parce que kii di indi ñam ngay dóor palaat bi mu wadd ci suuf Aysatu dafa dóor ndab li rek mu daanu toj ci suuf ñaari xaaj yonentu boole sëgg moom jël ñaari ñaari ñaari xaaj yi fekk ñam la yoo xam ni bu daanoo it du yàqu comme comme ñam yu dëgër yooyu noonu yonentu dajale ñaari palaat yi dugal ci biir néeg bi defar ñam yu taaj ne kulu xaarat ummukum lekk leen seen yaay dafa rek ñaari yoon la ko wax kulu xaarat ummukum kulu xaarat ummukum lekk leen seen yaay dafa fiir rek mu xaar ba Aysatu defar ndabam ñamam ba indi xam nga xam nga xam nga ne Aysatu moo toj boole jàmbur dafa xaar ba Aysatu defal ndabam ba andi mu jël boolu Aysatu bi yóbbu jox Ummu Salama boolu Ummu Salama bi Aysatu toj mu ne ko téyel yaa ko moom gis nga maandu gi maandu sallallahu alayhi ne fiiraang gi de waaye yaa toj ndabu jàmbur daf laa bàyyi ndab loolu nga toj moom jël xaar ba waa ji andi ndabam mu yónnee ko ci Ummu Salama jox ko mu am ndab lu baax hadis bi Nasaay andi na ko الباني نينا حديث بوير لا لول لفلي وان ما عندو بيرن تيالا محمد صلى الله عليه وسلم تي بيت كرم واي تي بيت تمت امنا بني جيجن جو خمني سي بنو مخزوم مخزوم لا بوكون دا فا ساتي نيك كليفا ا ني لا نياغ يورن تيالا محمد صلى الله عليه وسلم بوم داغ لوخ بي يورن والذي نفسي بيدي لو كانت فاطمه بنت محمد لقطعت يدها mu ne maa ngi gën ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom bu doon Fatima doomu Muhammad moo sàcc ko ma dagg loxo atte yàlla xamut ci doom ak keneen nee na bu doon Fatima moo sàcc mu dagg loxoom maanaam ni muy jëflante ki ko gën a sori noonu lay jëflante ki ko gën a jege loolu it ci rafet jikko la la bokk bu daan wax moom yonent bi sallallahu alayhi wax ji du gaaw ba ëpp mais du yéex ba ëpp wax la joo xam ni da koy xam bu baax a baax da dafay leer nañ fasa dal di téye noonu la daan waxee dégg daf daan dal xam ne ñëpp dañ koy dañ koy dañ koy mën a mën mën a dégg eh, loolu la Aïchatu wax ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa daawut gaawal waxam ji comme ni ngeen di def nii mais daf daan wax wax ju leer ju fasaa joo xam ni ku toog ci wetam dana ko mën a mokkal xadis bi muttafaqun alayhi luñ dëppoo la loolu ci rafet jikko la bokk ndax nga fexe ba li ngay wax nit ñi man koo takk bu gaawee bopp nit ki du ko mën balaa nga wax baat bi balaa muy xam li nga bëgg a wax foofu nga demaat ci beneen baat dafay jaxasoo mais waxam daf daan dal daan teey nànk par nànk te daa wax ci lu ko amul njariñ lu mu wax rek. dafay fekk loolu yaakaar na ci tiyaaba mais lu mu yaakaaru tiyaaba yonentu daawut ci dugg su amee lu ko naqari ci kanamam nga koy xamee mais daaw wax daawut wax comme que lii baaxut daawut ci wax du nekk ci wax di wax yoo xam ne ay mbóosóotul soo ko tooñee daal ba nga ba mu xam ne yow mi li nga def neexu ko boo xoolee kanam gi dana changé da xam ne kii gërëmul lii ngay def moo tax bu bañaan dara dañ ko kam ci kanamam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais daaw wax ci yu bëri maanaam daawul werante hmm? sallallahu alayhi wasallam dégg loolu nag mooy mbiru boppam mbiru boppam mais mbiru lislaam loo ci dugal baaxul dana wax ne lii baaxul mais soo ko tooñee moom du nekk foofu di coow ak werante ak nangam nangam da gis kanam gi daal changé na bu rombaan ay xale sax daf leen a nuyu xadis boobu Buxaari andi na ko ak muslim ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan romb ay xale yu ndaw ne leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa hmm? rus gone nga romb gone nga ne ah kii de ab xale la rek benn nga ne ko booy na nga def yow wan ko ne ko booy nga booy. mais yonent yi bu leen rombaan daf leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu comme ku romb mag su rombaan ay xale kuy nuyu xale du bàyyi mag dégg nga da daan julli moom yonent bi sallallahu alayhi dégg benn xale buy jooy mu gaawal julli bi ndax ragal yaayam am fitna julli ak nu mu fooree mais suy julli dégg benn xale buy jooy ci gannaawam dafay gaawal julli gi gaaw a sëlmal noonu la rafete woon jikko noonu la amee woon yërmande te ay sëtam daf leen doon fopp hmm, di jiite nit ñi yonentu mu ngi jiite bu jógee fopp buy sujjóot teg noonu la daan def ak ay sëtam loolu lépp du bëgg du bëgg kii eh, àddina waaye am respect ci doomu aadama yi doom woon daan foofu fóon ay doomam ak ay sëtam ay sëtam daf leen fóon jële doomam yi gaaw a génn àdduna mos na yéeg di xutba xasan ak xuseynu dal di ñëw yonentu wàcc ci xutba ga di dox dégg nga ba ci ñoom mu yenu leen yéegaat ci kaw minbar bi وفرنا اعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم ني دومي دال نيك فين لا نيل مون دا ما خول نياري خالي نيغي فكستلو مونو ما مو بوب بما دغ سما وقتان بي يكتي لين دا غيس خالي ني فكستلو ري مو واتي سي منبر بي ديم فوب لين نيوات كين دومو dan فون sëtam yooyu benn sàmm ne ko am ah, man de am naa doom yu ëpp yi nga am nii mosuma see fóon kenn mu ko yàlla du yàlla du yërëm koo xam ne du yërëmaat koo mu yërmaane ko yàlla du ko yërëm sallallahu alayhi wa sallam dégg kon noonu la meloon ak ay sëtam ak ay doomam daf leen doon fopp muy Xasan ak Xuseenu ak Umaamatu Umaamatu doomu Zeynabu la euh, la ko doon def waaye ku lewet loon ci ay mbindaanam Anas radiallahu anhu wa ardaahu nee na liggéeyal naa yonent bi fukki at musulmaa wax cëm musulmaa wax lu tax nga def lii ak lu teeye nga def lii maanaam musulmaa yedd ci dara xam nga ne nag dëgg-dëgg nag nga liggéeyal ko fukki at mosoo juum yombut de mais lii dafay wane mat ak yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fukki at nit liggéeyal la mosoo koo wax cëm mosoo ko wax lu tax nga def lii sallallahu dëgg la mat ak anas mu ngi ci biir mais mu gën a wane mooy mat ak yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax doomu aadama matut nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam musu dóor mindaanam musu dóor mbindaan musu dóor jigéen musu dóoral kenn ci loxoom lu mooy rek muy jihaat ci yoon yàlla maanaam bu bu fayee koo rek nit ki dafa def ci sharia loo xam ne ak sharia dal na ci kawam mais pour moom boppam musu fayekul boppam hadis boobu Buxaari andi na ko Malik andi na ko Abu Daawud andi na ko Muslim andi na ko te musuñ koo tànnaloo ñaari mbir lu mooy xool ne ba ci gën a yomb mu jël ko fekk bàkkaar amul ci xam nga ñun dañuy yaakaar ne bu gën a diis rek moo gën a baax mais yonent lu gën a yomb rek la daan jël fekk bàkkaar nekkul ci musuñ koo tànnaloo ñaari mbir lu mooy ne moom tànn na ba ci gën a yomb bu fekkee bàkkaar nekkul ci lépp lu bàkkaar nekk nag moom moo ko gën a sori sallallahu alayhi ko xama yërmande la daan na wax ne yàlla yebalul ma ngir ma rëbb nit ñi waaye dañ maa yebal ngir ma nekk yërmande ci nit ñi kooku muslim ji ënd na ko waaw léegi-léegi mën nañoo wax ne parfois mu rëbb benn saxaaba walla mu wax ko loo xam nii daal wax bi daal kéewut mais nag sallallahu alayhi wa lu mu la wax rek daf lay dal ci sens waaw benn jigéen mos naa ñëw rek benn ñëw rek laal mbagg yonent bi yonent ne ko koo kan la akalahul aswad lu ñuul li lekk na ko kan la lu ñuul li lekk na ko mu ne yonent may naa la sama bopp yonent ne ko waa baax na takk naa la xam nga moom boo ko sa bopp rek bu la takkee baax mu dem ci mbokkam yi wax leen ne yonent bi takk na ma mbokk yi ne ko toskare ñeel na la yow da ngaa fiir te boo ñu duggee ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wane fa sa fiiraa ngi bu la yàlla nga de nga xal ko mu dem si yonent bi ne ko xàcc ba nga maa bëgg a xàcc génn si séy bi yonent ne ko baax na mu génn si séy bi nee nañ nag séylaat na keneen waaye benn bis daf doon dem ci benn ndox di sangu rek ab till bu ñuul ñëw lekk genn wàll gi mu dee la <laughs> ko yonent wax rek daf foo dal Muawiyat ibn Abi Sufyaan yonentu mos na ko wax yàlla bu yàlla yàlla bu la yàlla suurloo mais gannaaw ga nee na damay lekk ba sonn rek waaye daaw ma suur laman bi dafa barke barke koo xam ne nii moytul mu wax la dara bu la kafee sax loolu wax dara waaye nag daan na wax ne yàlla ku ma ŋàññi si samay saxaaba wala ma rëbb ko yàlla nga def loolu muy tiyaaba ñeel ko bu mu nekk mbugal ci moom moo tax yenn kàddu yi ngeen dégg mu wax ko si yenn saxaaba yi yërmaane la ko yàlla soppi ci ñooñ mënoo ànd ak ay nit nag ba kii te doo leen wax dara parfois nga wax waaye moom ku mu waxaan dara rek dafay ñaan yàlla yàlla li yàlla nekk ba ci moom zakat wax boobu nag du wax pour mer mais wax pour jubbanti la sallallahu bokk na ci yërmandeem daan na wax ne yàlla moo tax xadis bi xadis bu yéemee nga ne xadis bi ku ko dégg sax doo bëgg a jiite benn mbooloo daan na wax ne yàlla sama xeet képp ku ci jiite dara ba pare soxare ñooñu yàlla yàlla ko soxare daan wax ne sama xeet képp ku ci jiite aw nit yërëm leen yàlla yàlla nga ko yërëm moo tax ku jiite ci xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dara métital ñi nga jiite amul sikk foo yàlla métital sa kaw mais ku leen yërëm foo yàlla yërëm la nan lay nit di def njiit dañ koy sàkku rek waaye ku ko xamoon da koy daw ku xamoon li nekk ci jiite loo man ci daw ko da ko daw hmm? daan na wax sax ne hal turzaquuna wa tunsaruuna illa bi duafaaikum lii moom mu ngi ci Buxaari moo tax xadis bi xaw ma ñi gars yi dañ ko déggutam déet mu doon wax ci baabul istiaana istigaasa bi saalihiina wa duafaa Buxaari noonu la ko tiitee daal bunt bi jàngale xettaliku si ñu baax ñi ak ñu lor si ñu xam naa waxa bi war nañoo wax Buxaari mushrik la bokkaalikat la parce que xeetlu ko ci yàlla lañ koy def ci ci seen wax ñoom foofu yonentu wax na ne yàlla joxul leen wërsëg dimbaliwul leen lu mooy ci ñu lott ñi ñu lott ñi dafa am ñaari anam ki lott mooy ku bàyyee yàlla léppam moom amul dara yaakaarul kenn yàlla rek la yaakaar mooy ñu yonentu wax kun fi dunya ka annaka garibun aw abiru sabil na nga mel ni ku tumuranke wala kuy romb yoon ku tumuranke ci barab moom du fa woote dara du fa rëy du fa puugarew du fa dara moom parce que fii amul fi dara ku lott dëgg-dëgg mooy kooku pas koo xam ne amul doole loolu mooy ñu baax ñi rek ñu baax ñooñu ci leen yàlla wërsëgalee ci leen yàlla di dimbale bu nekkutoon ñu baax ñi yàlla rek àddina sax wala boog ñu lott ñi mooy ñu tuuti ñi miskin yeeg yooyu am nga koy firee ci zaahiram lu mën a xew daal xadis bi moom wala nga ne yàlla dana dimbale nit ci barke nit loolu lépp waxul la ko lu muy boo gisee ku lot ku doyadi nga yërëm ko yàlla wax na yonent bi ne ko fa bi ma rahmatin min allahi linta lahum yàlla ne ko bu fekkoon da ngaa tàng xol xiis jafe jëflante bu métti ngay jëflante nit ñi konoon ñoom ñoom ñu wan la gannaaw waaye da leen jéggal te nga yërëm leen dégg nga daan na wax ne ñuy yërëmee yàlla dana leen yërëm yërëm leen ñi leen faree suuf ka leen faree kaw yërëm leen noonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax koo ëpp doole yërëm ko ndax yàlla mi la ëpp doole man laa yërëm xadis boobu Tirmisi soloo na ko Albani nee na wér na dégg nga daan wax ne ñett ñooy waa aljana bokk na ci ñim ci tudd mooy góor goo xam ne ni xol bu sew la yore xol bu am yërmande nga xam ne dafa yërëm képp koo xam ne julli la rek daf la yërëm ku gaaw a jooy xol bi gaaw a tooy mënul lor nit kooku xamal ne loolu màndargaay nitu aljana la waaye koo xam ni buñ doon jëm paak nit ki sax muy ree amul yërmande ku dul am ku dul yërëme yàlla du ko yërëm kon rafet jikko bokk na ci bëri yërmande wàccee sa bopp daal anas yonentu ko mosu yónni pour wan na ne bi ku oyofoon la danga koy dégg nii da nga yaakaar ne nangam nangam nangam bo kenn mënu koo xool wala doo ko mën a jege wala jëf mënoo jëflante moom déedéet boo dundoon ak moom da ngay gis ne moo gën a oyof ñëpp oyof oyof la du comme nit kooku nga xam ne dafa mel ni buur kenn mënul jot ci moom amutoon bëkk néeg moom da ngay ñëw rek dugg amutoon bëkk néeg buy taxaw ci bunt bi garde koo soxla sëriñ bi dafa jàpp yonent bi amutoon loolu da ngay ñëw dugg mos naa yoon ni anas anas na ko dew ma nee na mën a yónent bi dew ma te pourtant nag bëgg naa dem loolu daf lay wan ne gars yi ñemoon nañ ko de xam nga yéen ñii rek am na suñu bëri fii su ma la yónnee ñi naa wax dew parce que jikko yonent bi dafa des si man mais bu matoon toon ñaa nga maa kafe loolu déw ma parce que yéen a ngi ragal su ngeen ma waxee déw ma ma mer mais Anas xam na waayam xam na ne su ma ko waxee déw mi du mer ndax ku oyof la woon mu ne ma yónni yonent bi yónni ma ma ne ko déwuma te pourtant bëgg naa dem mu ne ma génn ba ay xale ñuy foofu ci marché ba mu taxaw tuuti rek mu ne ba ma taxawee rek yonent bi ñëw téye sama ndong gi xool ko muy ree ne ma ne ma anas ndax dem nga ma ne ko waa danaa dem maanaam ndax da nga dem ma ne ko waa danaa dem xool da koo topp topp ko topp ko topp ko ba mu foo ci xale yi rek mu ñëw téye ndong gi anas gersu xool ko yonent bi commencé rek ne ndax da dem mu ne ko waa dem hadis boobu muslim and na ko abu daawuda gis nga nu mu oyofoon <clears throat> parce que moom gisutoon nit ñi mais day gis nii ay jaamu yàlla lañ mu xormaal leen mos na toog ci jàkkaam sallallahu alayhi wa benn waay boo xam ne xamut sàmm yi xam nga ah kaw kaw yi ñoom ñoom dañuy sañ benn waaye boo xam ne ab kaw kaw la ab sàmm la daal ñëw rek ci jàkka ji rek commencé tour ndox ci jàkka ji jàkka kenn kenn dana si tuur ndox saxaaba yi jug bëgg koo dóor parce que li mu def dafa foofu ne bu leen ko dagg bàyyi leen ko bàyyi leen ko mu yeggale ñu bàyyi ko mu tuur ndox tuur ndox tuur ndox ba pare yonent woo ko ne ko jàkka ji du pour tuur ndox du pour sànni sobe pour tudd yàlla ak julli ak jàng alxuraan bàyyi ko mu dem digal benn waaye ne ko jëlal siwo ndox mu jël siwo ndox sotti fu mu doon tuur ndox gaa yi dañ ko bëggoon dóor waaye moom lii la li lii da koo waxal rek ne ko dund nii la parce que dafa xamut gis loolu moom moo doon jikkoom te ku ko mën a invité mu ñëw ak lu muy rëy rëy rëy loo ko xoo invité ko mu ñëw sallallahu alayhi wa moo xam gor nga wala jaam nga ku am nga wala ku ñàkk nga soo ko invité rek day teew sallallahu alayhi wa sallam xewul kenn daal daraan seeti ñu feebar fi gën a sori ci Medina te soo ko nang soo ko ñaanee ngant ne ko baal ma parce que nangam ma nangam nangam mu nangul la ngant moo tax sax gis nga naa fekk yooyu bañoon dem xare tabu dañoo ñëw rek yonent bi dañoo am ngant nangam nangam mu jégalu leen yàlla pourtant ay naa fekk la waxu waxuñu dëgg mais moom du delloo ngant ngant lu nga ko rek mën la wax nga dëgg baax na baal na sallallahu alayhi wa sallam euh, rëyutoon bëggutoon it ku ëppal ci tàgg ko ëppal ci tàgg ko mooy dem ba def ko yàlla daan wax ne bu leen xaabaabal ci tàgg ma comme nu ko nasaraan yi defee man jaamab yàlla la wax leen jaamab yàlla la yonentum la dégg hmm? kon tagg yu yàlla la moom yonent bi bëggul ko sallallahu alayhi moom rëyutoon ma tagg boo xam ni yell na ci xaqam sallallahu alayhi wa te lu baax lu ne yell na ci xaqam kooku moom saxaaba yi daan ko def ba mu leen may yërëm kon loolu neex na ko ndax loolu tagg yàlla la wax na ne suñ ma àddi yàlloon ab yeel ab yàpp yeel nga xam ne nii amul yàpp yu bëri moo gën a ñàkk solo ci gerte gi buñ ma ko joxoon ma jël te buñ ma wooyee pour yeel boobu ma ñëw wuy si xam nga yow mën ngaa wax ne kii daf daf daf may fontoo xoolal mu invité ma këram joxuma lu ay yu ñàkk solo yi mais yonentu soo ko wooyee mu xam ne li nga koy wooyee nii yàlla bëriwul solo sax dafay ñëw parce que yow loolu nga am daan na wax ne képp koo xam ne lu toll ni sànq lañ ci rëy mu ngi sa xol doo duggaal jana rëy mooy bañ dëgg walla xeeb nit nit lañ wax waxuñu jullit xeeb nit dégg kon moom noonu la mel benn waaye mos na koo invité hmm. te lam ko invité saaño la saaño dugubu saaño mbu mburam saaño la la ko defaral ak diw goo xam ni lam ci diw dem na ba soppeeku xet gi changé na daal ma daal su doon tey daal nga ne ma nga ne ma cere joo xam ne nii ñeex mi dafa xaw a ënd ënd ñeex mi dafa xaw a ënd yonentu dem wuy jikko sallallahu alayhi wa moom loolu la loolu loolu Hmm? nii la meloon ak doomu aadama yëpp amutoon xaj ak seen yéen wutoon kenn lu ñaaw bañutoon kenn parce que wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiina moom moo tax yërmande la woon jëm ci mboole mi ndefi yonent bi sallallahu soo ko joxaan loxo nii du dindi loxoom fekk dindi noonu la melaan su ngeen saafante yaay dindi sa loxo moom mu door dindi loxo su jàkkaarloog yow balaa moo turne yow nga turne ndax ormal la bañ rek xool la nii rek def nii nga ne ak ah, kii def maa jéppi bu jàkkaarloog yow yaay dem ba tourné mu turne bu la joxee loxo balaa moo dindi loxoom rek day bàyyi ba nga dindi sa loxo wallaay karimu li ko alquran wax wa innaka la ala xuluqin azim loolu moom mooy dëgg te bu toogaan ak nit ñi toog bu am yar la daan toog ba nga xam ne nii gars yi dañ ne oom yi sax doo ko gis ndax ni mu yemoo ñu ne déedéet li ñu bëgg a wax mooy oom yi daawut ko yëkkati nii ba tiim nit ñi dafay bëgg ne nit ñi toogee rek mu toogee noonu maanaam toog bu am teggin daal la daan toog ak saxaaba yi doo ci yëg ne kii dafa yëkkati boobam seen kaw te moo leen gën fuuf. lu mënul lu nit mënul xiyaas la leen gënee mais du feeñ ci toogam du feeñ ci benn côté dafay mel ni kenn ci ñoom sallallahu alayhi ku dëddu woon it àdduna la dëddu àdduna bokk na ci rafet jikko ndax yàlla daf koo tànnaloo ñaar ne ko yàlla tànnaloo na rek nga nekk buur nekk yonantu comme Suleymaan alayhi salaam wala nga nekk jaam di ab yonantu moom mu tànn nekk jaam di yonantu xam nga moo naa wax ne naa boole diggante nguur ak yonantu mais moom dafa tànn nekk jaam ak yonantu jaam boo xam ne dafay ñàkk di sonn di xiif di mar comme ñëpp ba dee jot mu dee loolu la tànn moo tax lu muy foor foor daan tëdd ci basan léegi-léegi daan na tëdd sax ci suuf léegi-léegi ay tapp yu ñàkk solo daan na ci tëdd te moom mooy malikul muluki mooy buuru buur yi buur yëpp seen nguur gi ci barkeem la ko yàlla joxe bu ko neexoon tey mu nekk buur ndax yàlla tànn loo ko loolu doj yi ngi soppeeku wurus pour mu jëfandikoo ko mu ne leen moom soxluwut ko bal sax soxnaam rek mu ëppoon alal ci màkk kooku ñàkkul mais moo ko soxluwut ndeysaan Anas ma Maalik nee ne mos naa dugg ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam fekk ko mu ngi tëdd ci benn basan bu ñëw basan ci la tëdd xam nga néew na nga dugg ci néeg kilifa lu mooy da fekk néeg bi dafay dàq sa fuuf situation bi nga koy fekk dafay dàq sa situation fuuf mais bi da ngay dugg ci néegam nga yërëm ko parce que soxlawutoon àdduna anas nee na maa ngi ko fekk mu ngi tëdd si benn basaan ngéeganaayoo ngéeganaay goo xam ne ni ay banti tàndarma lañ def ci biir mu ne ba ma duggee omar dugg omar ibnul xataab mbooloo si saxaaba yi dugg ba omar duggee mbo saxaaba yi dugg yonent bi daal di tourné omar gis fi yonent bi tëddoon basaan yaa ngi marqué foofu basaan baa ngi marqué ci yonent fii ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga xam nga basaan woon de maanaam seen sell mu wax dafa tëdd ba basan yi di marqué ci yaramam mooy basan yi wow yooyu ba Omar xoolee yaramu yonent bi wet gi basan yaa ngi ci marqué mu jooy Omar ibnul Xataab jooy yonent ne ko looy jooy yow Omar mu ne ko lu tax duma jooy wa kisra wa qaysar yaishaani fi ma yaishaani fihi min addunia wa anta ala alxaali alladi ara mu ne ko Omar ne ko lu tax duma jooy ndax te kisra ak qaysar ñay ngay dund la dund ci aduna yow nak yaang ci xal bi ma gis manam qaysar buur la lu ne am nako kisra buur la lu ne am nako yow nga nek situation bi teud ci bassin ba sa wet gi di marqué lu tax dumay joy duma joy ma jooy iruntu ko yaa omar amma tarda an takuna lahum addunya wa lana al axira qaala bala qaala huwa kadalik mu ne omar xanaa gërëmoo yàlla jox leen àddina ñun yàlla jox ñu àllaaxira mu ne ko ankay ah, mu ne ko mbir mi noonu lay demee kon moom buurutoon àddina si misaal tey rek fekk nit ku baax ci situation boo xam ne da nga koy mais nga fekk koo xam ni tekku dara ci misaal ci situation boo xam ni dafay yéeme ci wàllu àdduna loolu loolu loolu duñ ci nattee ngëneel ngëneel ci jikko ak ci mbaax lañ koy nattee <coughs> bu fekkee bëgg nga yonent bi ni yonent bi meloon ku ko mel rek bëgg ko waaye nii la daan def da daan tëdd ba basan yi di marke ci ci kawam daan na toog ñaari weer yoo xam ne cin du tàkk këram cin Aïchatu wax na ko nee na daan nañ gis weer ba mu dee ñu gisaat weer ba mu dee ñu gisaat ko ci yoonu ñetteel bi te cin tàkkut kër yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Urwatu la ko waxoon Urwatu ne ko yow sama tànt lu ngeen daan dundee kon mu ne ko tàndarma ak ndox bu ñu amee tàndarma daal lekk jël ci ndox mi naan mais cin moom daawu fa tàkk maanaam daan na toog lu mën trois mois deux mois yoo xam ne cin daaw tàkk këram. Ibnu naa baas na yéen su daan fanaan ay guddi yoo xam ne nii guddi yu toppalante la te waa këram duñ am luñ lekk lu ëpp ci li doon lekk daal mooy saayir saaño saaño maanaam su doon cere moo ci liñ daan dundee njabootam te pourtant kat pourtant am na saxaaba yi ñoo xam ni boroom alal lañu woon te suñ koy yëg rek rek ko waaye yonent bi du wax kenn dara parfois. dafay tànn moom waa këram ñu dundee noonu kooku Tirmidi soo nag Ibnu Maaja sallallahu alayhi wa loolu dara la woon ci ay ci ay jikkoom xadis bi nag dafa xaw gudd waaw xanaa ñu mottali lii lu mën a xew daal mu ngi noonu ku baax la woon diggante mag mbindeef yi amul woon ñagas ñagas ba ba muy waaj génn àddina def na ñëw leen sama yaram a ngi nii képp ku ma dóoroon ñëwal dóor ku ma ŋàññi woon ñëwal ŋàññi ma bu leen ragal nag ma jàppal leen dara parce que ki fayu moo ma gënal ku ma bàyyi noonu ndax bëgguma dajeek yàlla fekk maa ngi yoral benn mbindeef àq sallallahu alayhi waaw danañ wax saxaaba yi ku ma ci tooñ kaay fayu sama yaram a ngi nii parce que moom kenn la woon ci ñoom doonu woon buur ak dag mel woon noonu ak nit ñi kenn la woon ci ñoom mais ñoom it xamoon lañ gëddam ku rafetoon jikko la ci diggante ak boromam ndax xaq yàlla yi waxuma daan na ko joxe waaye naafile yi rek daan na ci nekk ba ñaari tànk yi di néewi ana kan si ñun moo julli ba tànk yi néewi kan ku ko mos a def moom yàlla jéggal na ko bàkkaar yi njëkk ak yu yi yi ñëw teg si daan julli guddi ba tànk yi ñëw néewi saxaaba yi daan daan nañu ànd ak moom di julli bés kaam sax ñu bëgg a rocceeku ndax julli gu yàgg <laughs> sallallahu alayhi nettal nañ ne bu daan julli boo nekkee ci wetam dangay dégg dënn bi ni muy riitee ngir jooy yi muy jooy ci biir julli gi maanaam boo julli nag moom bu yàggee sax mu jax-jaxal la ndax jooy yi ak riit ak dënn bi daf lay jaaxal day mel ni cin luy bax loolu nettal nañ ko Cheikh Tidiane Sarif ne nañ moom néew na nga mën a toog ak moom julli Cheikh Tidiane booy julli ndoor ak moom dënn bi dafay riit ba mel ni cin luy bax comme yonent bi ñu ngi ko doon defee moo tax gaa dañ ko doon sori sax bu ñu julli moom Cheikh Tidiane musul leen yàlla ci nekk nit koo xam ne koy diiŋal parce que nekkutoon lu muy benn wëli yàlla lu ñaaw rek yaa ko wax te Abu Muslim alxawalaani mii ma leen nettali miñ woon safara si safara si lakkut ko mu dajeeg Omar ibnul Xataab Omar ne maa ngi sant yàlla bu ma gisee ci xeetu yonent bi koo xam ne yàlla may na ko karaama gu tolloog moo gisa gi mu defaroon yonent yàlla Ibrahima Abu Moussa al-Xawlaani moom daan yor kurus daan yor kurus kurus yàgg na fi benn bis kurusam gi sax kawtif mos na see feeñ kooku Ibnu Kasir ko ci bidaaya wa nihaaya di wérde di wérde wérde ba xaw a gémmantu nii kurus gi war di laxusu si moom moom moom nelaw na kurus gaa ngi sabbal kuus gi si boobu mooy sabbal sabbal yàlla hmm? mu yeewu gis kurus gi sabbal mu woo soxna si kaw teef kaay xool ñu ñëw fekk kurus gaa ngi sabbal yàlla di ko bàkk hmm, ba muy indi dalaayilu nubuwa kawtif yi nga xam ne ni xeetu yoon feeñ na si xeetu yonent bi moom ibnu kasir indiwaale na loolu kooku xam ngeen ne du jaayil de du jaayil de moo tax bu leen yàlla nattoo mukk ngeen weddi wëlli yàlla yi lii Cheikh Tidiane amoon na ko yonentu bu daan julli dënn bi daraan daraan daraan yëngatu ba mel ni cim luy bax kon kooku rafetaloon na jikko ak digganteem ak boromam daan na wax ne ma wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar moo ma gënal lépp loo xam ne jant bi tiim na ko wata rek kuñ ko fi taajaloon ne la subhanallah walhamdulilah wala ilaha wala akbar ak nga wax ko ak ma jox la oto bi lu la gën a mu moytul nga tànn oto bi <laughs> mais yonent wax baat boobu moo ko gënal àddina lépp ak li ci biiram kon xam nga kooku joxoon na yàlla ak xam ku daan tudd yàlla la daan wax ne kuy tudd yàlla ak ku tudd yàlla mu ngi mel ni kuy dee ak ku dund kon dund dëgg mooy tudd yàlla dee. mooy bañ a tudd yàlla dégg nga daf daan ñaan yàlla lu bari bokk na ci ñaanam yàlla maa ngi muslu ci mboolem ayu li ma jëf ak ayu li ma jëfut maanaam mboolem ay yi daf ci doon muslu yàlla maanaam buñ toppee jikkoom moom eh, fii la ñuy yem ci gàttal daal neen jaamu yàlla gune ne yonentu daan na ko def daan na ko def te ku rafetoon ñim laan jubbante nit ñi la xam nga yonent oyof bu mu oyof moo tax nit ñi ñama ko wax lenn benn bis mos naa toog benn waxambaane ñëw ne ko yow ko yaa rasulallah yow yonent yàlla bi xam nga yaa rasulallah ku ko wax war nga see teg lu baax mu ne ko may may ma ndigal may njaalo <laughs> xam nga kooku kooku loolu doy na waar de yaa rasulallah yonent digal ko mu ne ko may ma ndigal damaa bëgg nga may ma ndigal may njaalo hadis boobu ahmad am na ko rek saxaaba yi jàkkaarloog moom jàjji ko xam nga ñoom yenn yi bëgguñ koon woon bañ ko jaajee yonent bi ne leen ma ma def leen ndànk yonent bi leen ko waa jege mu ko ndax bëgg nga sa yaay njaalo mu ne ko déedéet mu ne ko nit ñi tamit bëgguñu seen yaay njaaro ndax bëgg nga sa doom bu jigéen njaaro mu ne ko déedéet mu ko nit ñi tamit bëgguñ seen doom yu jigéen njaaro ndax bëgg nga sa mbokk mu jigéen njaaro mu ko déedéet mu ne ko nit ñi bëgguñ seen mbokk yu jigéen njaaro ndax bëgg nga sa bàjjan di njaaro mu ne ko déedéet mu ne ko nit ñi bëgguñ seen bàjjan di njaaro ndax bëgg nga sa tante njaaro mu ne ko déedéet mu ne ko nit ñi bëgguñ seen tante yi ba pare jël loxoom. moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ko ci waaje ne allahuma ghfir zanbahu wa tahir qalbahu wa hassin farjahu yàlla jéggal ko laa laabalal xolam wëttul ko tuurukaayu ndoxam kooku gannaaw ga xalaatutal njaaloo ci boobu la ci génn moom mais gis nga mënoon na ko gëdd wala mooy kii dafa ñàkk teggin wala dafa réew wala dafa nangam mais da koo xamal na ko lii bëggaloo ko sa bopp buñ ko daganaloon yow nit ñi dañ ko def sa yaay <laughs> rek baaxut baaxut rek comme ko bëggoo ko mooy wane ne baaxut bu ko def nit ñi la ngay def bu la ko yàlla nattoo foo jëm ba pare ñaanal ko yàlla kooku keroog la bàyyi jikko ju ñaawee noonu parce que mooy lu yàlla wax ud'u ila sabili rabbika bil hikmati booy xootee jëmee ci yoonu yàlla na nga ko defee ci ni mu gën rafetee lu yàlla wax idfa' billatii del défendre ni mu gën a rafetale noonu la doon jëflante ak nit ñi sallallahu alayhi wa sallam benn màggat mos naa ñëw ci moom nekk ko yonent bi ñaa ñaanal ma yàlla mu dugal ma aljana yonent ne ko aljana màggat du ci dugg màggat mi commencé jooy yonent bi ne woo leen ko mu ñëw mu ne ko laa bëgg wax ne balaa ngaa dugg aljana da ngay dellu xale maanaam daraan kaf ak nit ñi day kaf ak màggat mi màggat mi dafa ñëw ne ko ñaanal ma yàlla mu dugg aljana mu ne ko aljana màggat dafa dugg <laughs> waa ji commencé jooy muy mu woo ko xam ne kii affaire bi ci na mu ne ko dama laa bëgg a wax ne la balaa ngaa dugg aljana da ngay dellu nekk xale reem nag li ci ëpp muuñ la muuñ ba dégg di di feeñ sallallahu alayhi wa sallam ree ba xaqataay kekk kenn du ko dégg ci moom kenn ree gi lu bu bu yemee muñ la bu demee ba tat nag danga nga ree ba nga gis bëñ gi waaye du xaq kekku moom bu mukk sallallahu hmm? te loo ko jox ma ko mu jox la boo ko fekkoon mu sol yére nga ne ko ma yére bi mu ko jox la day dugg rek simmi yére bi jox la daawut delloo may ma mu ko yore joxul la ko musuram loolu nit ñi xam nañ ko ci moom moo tax mënul am lu bari yére bi mu sol boo ne ko jox ma ko sallallahu alayhi wa sallam mu simmi yére bi jox la ko te nit da koy lor moom mu am kàttan pour mën a fayu baal ko makka lor nañ ko lor wu métti taayif lor ko lor wu métti boole ko xale yi ñu sànni ko ba yaramam bi nàcc hmm? malaaka mi doj bi feeñu ko ne ko ñaari doj yi séq mag boo ma mayee ndigal rek yàlla nee na moo ma mayee ndigal rek ma dëpp ko seen kaw ñoom ñoom ñu dee yonent ne maa ngi yaakaar yàlla génnee seen ndigg kuy jaamu yàlla tudd ko bokkaale baal doon yow nga ne aywa dëppal ñi saasaay lañ liñ ma def yëpp na doju dëpp seen kaw ñu dee bal sax yàlla ñaanal yàlla pour ñu ko mais moom daaw def loolu muy sóoraal ne ñi mën nañoo jur ku baax ëllëg di la ñoom mel nañ ñu jaaduwut dégg nga waaye nag parfois mu yërmaandeem da koy feeñal doomam Ibrahima ba muy gaañ Ibrahima yonantu daan daan daan wax ne yonantu la doomu yonantu la maanaam yonantu doomu Ibrahima boobu bu màgg Ibrahima doomu yonantu bu màggoon rek di yonantu <coughs> mais dafa dee ci xale parce que benn yonantu mënul am. ba mu dee ba mu génnee àdduna yonentu koo xool rek jooy ne ronqañ yaa ngi tuuru xol baa ngi jàq waaye duñu wax mukk lu mooy lu gërëm loo yàlla wallahi yaa ibrahima inna bika la mahzunun maa ngi gën ci yàlla yow ibrahima am na njàqare ci jóge gi mu fi jóge dafa joxoon ñëpp cër sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne ku mën a jëriñ mbokkam na ko jëriñ danaan ànd ak miskin yi di dox ñoom di ànd ak jaam yi di leen fajal seen aajo maanaam rëyutoon daal kenn la ci nit ñi moom yonent bi sallallahu alayhi wa su ko defee ay jikkoom kenn mënu koo takk lu mën a xew daal mooy albirru mbaax xusnul xuluqi mooy rafet jikko rafet jikko nag ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi nga koy jëlee lii dara la woon ci ay ci ay jikko na wax ne kii gën ci yéen mooy ki ci gën a rafet jikko ñi ma gën a bëgg ñi may gën a jege yomal qiyaamati mooy ñi gën a rafet jikko yomal qiyaamati amul lu gën a diis ci kaw balaas bi rafet jikko moo gën a diis ci balaas yi yàlla peese daan wax ne tànneef yi mooy ñi gën a rafet jikko sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne borom jikko ji rafet yàlla dana ko yéegee ci dara jaay xoor ak julli wax na ne ñi gën a mat gëm yàlla mooy ñi gën a rafet jikko tànneef nag mooy ñi nga xam ni ay tànneef lañ ci seen biir njaboot maanaam seen njaboot dañ leen tànn bëgg leen daan na wax ne ñi yàlla gën a bëgg mooy ñi gën rafet jikko waaye ismu bàkkaar mooy bàkkaar zënbu maa xaaka mooy la toq na fi nafsi ci bakkan maa mooy la yëngatu ci bakkan bi maa tara dara wa taxaraka mooy la nekk sa xol dégg nga wa tara dara muy dégg nga dégg nga fi nafsi si bakka maa xàkk fii nafsika lu mu si teg wa tara dara fi sadri lii loolu mooy isim mooy la toq bakkaar mooy la toq sa xol te dënn bi daa ko rut si xol bi daalul si dégg nga loolu moo di bakkaar bakaar ñaari màndarga la am màndarga boo xam ni dafa nëbb ak màndarga boo xam ne dafa feeñ màndarga bu nëbbu bi mooy loo xam ne yaa ngi ciy tiig di ci jàq sa xol dalut jëf ji daal pour nga def ko daal sa xol bi daal nanguwut loolu bàkkaar lay tekki ñaareel dégg nga kooku màndarga boo xam ne ci biir xol bi la nekk sooy jëf-jëf rek gis ne yow jëf jii daal daloo ci yaa ci hésité wala sa xol bi mu ngi ci deng-deng xamal ne jëf jooju bàkkaar loolu mooy wa ismu maaxaka fi nafsi fi nafsik mandarga bitti ci bàkkaar wala mandarga gu feeñ gi mooy bañ gi nga bañ nit ñi yëg ko soo defee dara ba pare bëggoon nit ñi yëg ko loolu bàkkaar la dégg nga yaakaar nga ne daal lii bu génnee dañ la ci yedd wala ñu ŋàññ la ci ñaareel loolu bàkkaar la waaye bu ñuy wax bañ nit ñi gis ko nag ñu ngi ci namu borom ngëneel yi gis ko maanaam nit ñu baax ñi waaw nit ñu baax ñi ndax doomu aadama yàlla daf ko bëgg daf ko bind ci bëgg nit ñi di ko gis ci lu baax di bañ nit ñi di ko gis ci lu bon loolu moom ku ne xam na ko kenn bëgguñu ñu lay gis ci lu bon lu baax nga bëgg ñu la ci gis kon lii comme que yaa ngi koy nëbbu sim nga nit ñi gis ko rek ndax bu buñ ko gisee danañ la yedd rek ñaare loolu bakkaar la dégg waaw euh, Abdullah ibnu Masud daan wax ne maa ra'aahu almuslimuuna xasanan fa huwa inda llaahi xasanun wa maa ra'aahu sayyi'an fa huwa inda llaahi sayyi'un lu ñu baax ñi gis ne mu lu rafet la loolu lu rafet la fa yàlla jullit ñi lañ gis ne lu ñaaw la loolu lu ñaaw la ci yàlla kon comme que lii bu génnee jullit ñi dañ la ci yedd rek kamal ne loolu bàyyi ko rek moo gën bàkkaar lay niru bu dee dañ la ci tagg nag lu baax la dégg tekkuwul ne dañ faa bëgg wax loo def feeñal ko waaye loo xam bu feeñee nga rus bu feeñee ñu yedd ci loolu la ñuy wax ne mooy bàkkaar amaa loo xam ne bu feeñoo nit doo loolu mooy lu rafet kon nit dana xamee bàkkaar ci ñaari xool xolom xol bi tiit ci jëf-jëf ji ñaareel ba mooy bu mu ko jëfee ba pare bëggul mu feeñ ñaar yooyu day wane mbir mi bàkkaar la loolu nag ñenc na mu mooy ñu yàlla ubbi seen dënn ñu ragal yàlla <laughs> kooku la ñuy wax ma kàccoor boo xam ne nii moom lu yàlla xam doy na kooku bakkaar ba mu koy def hésité wut te bu ko defee ba pare mu ne bu feeñee yoonam nekku ci kooku taxul ñuy wax hadis bi moo tax dafa am xaas ñu muy wax ak mooy ku ragal yàlla moom na na nattee boppam nii waaye koo xam ne nii moom ab kàccoor la kooku moom jëfam ju bon ci sax dafay jàpp ne lu rafet la moom la alquran wax afa man zuyina lahu suu amalihi faraahu xasanan koo xam ne nii yàlla taaralal na ko jëfam yu bon yi mu yaakaar ne lu baax la ku dem ba jëfam yu bon mu yaakaar ne lu baax la dana ko nëbb kooku buy def loolu xol ba du am benn problème te bu paree du ko nëbb parce que foog na ne moom lu baax lay def sax te lu bon lay def doomu aadama yàlla daf ko bind bind mu bu dem bu demee bay def lu bon sax dafa yaakaar ne lu baax lay def di ko feeñal kooku taxul ñuy wax waaye ñi nga xam ne xàmmee nañ lu baax ak lu bon yegg nañ ci degré boo xam ne lu seen xol nanguwul lu seen xol nangu lu rafet la ñoo ñu lay xadis bi di wax ñoo ñu bàkkaar si ñoom mooy loo xam ne bañ koy def ñu ngi hésité te ba pare it bëgguñ nit ñu gis ko kon xam ngeen xadis bi daa am ñu muy moo tax yonent bi ba mu doon bi waxut koog nit ku nekk da ko wax ak nit ku baax saxaabaam ku jub koo xam ne ni def bàkkaar dana am lu mu def ci moom mais du ñëpp ko moom kon xadis bi dafa mel ni am la lu matare waaye fekk ñi ragal yàlla ñu gëm ñu dëggu ñu lay wax am maa kàccoor yi ñooñu bàkkaar du yëngal dara seen dënn bàkkaar du yëngal dara seen dënn mais ñu baax ñi moom bu ñuy def bàkkaar danañ tiit te bu paree duñ bëgg nit ñu gis ko dégg waaw xam nga nit koo xam ni moom boo ko xamalee bàkkaar yoonam nekku si kooku boo xoolee ñaare yorul ji koo jullit jullit dëgg dëgg dëgg du bëgg ñu koy gis ci yu bon yi xataa sax nit bu defee bàkkaar ba pare yonent dafa ne suturaal boppam daf ne sama xeet yàlla jégal na leen ba mu des ñuy biral seen bàkkaar ñu ne ko ñoo ñooy ñan mu ne mooy kii def bàkkaar yàlla suturaal ko ba pare mu génn naan def naa nangam ak nangam yow yàlla suturaal na la doo suturaal sa bopp jullit warul bëgg nit ñi di ko gis seen image yu ñaaw yi loolu baaxul moom. dégg nga du bëggit lu mu def ci lu baax wane ko waaye waaye bu ko nit ñi xamee du rus kon loolu lu baax la loolu mooy màndarga bi parce que bu ko nit ñi xamee du rus te ba mu koy def xol bi dal na ci kon loolu lu baax la waaye nag du bëgg ñu koy gis ci lu ñaaw tamit loolu waral lu ñaaw li ba mu koy def xol bi nanguwut moom jullit laa wax bu ragal yàlla waxuma kàccoor yi lu ñaaw li ba mu koy def xol bi nanguwut talu ñaaw loolu boo ko ci gisee mu rus loolay bàkkaar loolu nga leen ci bi jàngal moom moom moom yonent da ko wax laajal sa xol rek sa xol daal bu nangoo mbir mi baax na bu ko nanguwut rek bàkkaar la waaye kooku ku baax la yonent wax na ci hadis ne boo demee ba amoo kersa defal lu la neex mooy wala ne def lu la neex nit ñi di gis ci lu ne te rusoo loolu bokk ci jikko jullit boo amee kersa rek danga moytu yenn jëf yi doo bëgg nit ñi gis la ci ay ayib ci ay mooy yàlla ci ay caaxaan tafaale ci dara loolu loolu jullit du ko def jullit bu gëm yàlla loolu du nekk jikko kon xadis bi li ma la waxoon démb rek laa leen wax dafa am ñu muy wax ak mooy ne nit bu demee ba ragal yàlla bàkkaar ak lu baax na ko natt ci xolom bi bu xoolee xolam bi nangu na jëf jii na def loolu tiyaaba la waaye nag loolu foo nga am foo yegg de comme ni ma la ko waxoon démb ko nit ñi mën a wax rek na def la moom bi nangu bakkaar it mooy loo xam ne xol bi nanguwut ko xadis bu luñ ko mën a indil comme ko xolam nanguwut bu mu def na ba hmm? am ñu ko firee ci beneen firi mooy ne la nekk sa dënn ñetti maanaam nit kuy def dara dënn bi bañ kooku ñetti anam la léeg-léeg mën ngaa def dara sa bañ ne la lii lu bon la bàkkaar la ñu andil la fatwa ci alquran ak sunna bu lay leeralal ne bàkkaar la ak su boobaa daw rek nga mën a def yow sa bi si boppam nee baaxul ba pare nga gis xadis bu lay gën a confirmer ne lii baaxul kooku daw rek nga ko war a def kooku moom ñëpp a ci yem ñaareel ba mooy sa xol jàpp ne lii bàkkaar la ñu indil la fatwa buy wane lii dagan na waaye fatwa bi daal leerul bu baax leerul bu baax ndax daa ñëw ne dagan naam daganul waaye daal sa xol moom nanguwul bàyyil comme que dafa dagan rek te sa xol bi moom bàkkaar la la ci jox moom jëf ji ñaawlu na ko bàyyil rek dagan naag waa ji bul ko dégg bàyyil loolu mooy sàmm ah loolu la yonent bi wax na aftaaka naasu aftaw ko ak nit ñi luñ la ubbee ubbee yombalal la mbir mi naan la defal garaawut waaye waaye bàyyi googu nag ci sàmm nga ko teg ndax sàmm bokk na ci bàyyi lu dagan ngir bañ a dugg ci lu xaraam mais boo bàyyee jëf jooju it bul wax nit ñi def xaraam yow wala nga ne force nit ñi bàyyi ko yow yaa ko bëggut def sa xol loolu la jàpp indil nañ la fatwa buy waree ne dagan yow nga ne duma ma def parce que sama xol nanguwut waaye nag du def googu du tax nga ne dafa xaraam parce que am nga fatwa buy waree ne na di la bu baax ci yow du taxit nga wax nit ñi ne lii bu ko kenn def yow moom yaay bàyyi rek loolu nag mooy ci amatu naas yi amaa wëlu yàlla boo xam ni lu xolam nangu rek looloo li kooku moom lu mu bàyyi baaxut waaye moom it bu bàyyi na bàyyi rek moom moom nanguwut ba ñi nga xam ne ñu ci gi la ñuy làmbatu daf ñu bàyyi si ñu làmbatu googu hmm? dégg ndax ki lay wax ci sariya moom ci ci lu feeñ rek la lay wax maanaam la mu gis ci masala mi rek dégg bu la waxee la mu gis ci masala mi nag te yow am na sa biir loo xam ni mën naa waxoo ko wala mënoo ko ko wax ba mu leer moom mën naa àtte ci yow loo xam ni loolu du sa àtte boo xamoon dëgg-dëgg sax yow sa mbir dëgg-dëgg du àtte noonu moo comme que yow yaa gën a xam sa bopp bul déglu la lay mufti bi di wax kër lay ubbee ci xam-xam noonu lay wax lii dalul sa xel daal dalul sa xel bàyyil di la moom wax na la dagan na dégg nga léeg-léegi fatwa bi moom du yem ci du yem ci dagan na waaye mu ñëw ne dafa war maanaam nga jël. nga jël benn mbir yow bëgg koo bàyyi sa xol nanguwut mbir xew na sa xol nanguwut borom xam-xam bi ñëw ne lii dafa war nga def nooy def su boobaa da nga war a bàyyi loolu ngay jàpp sa dënd bi te dem def jëf jooju parce que lu war mooy la wax ne mënoo koo bàyyi lii nag mooy ci amatu naas yi kii moom ñëpp ko bokk da nga xalaat mbir mi ñaawlu ko alquran benn borom xam-xam andil la ci xadis wala yaay alxuraan ñaawlu ko bàyyi. danga nga koo ñaawlu jàpp ne bàkkaar la moom mu indi la ay alquran wala hadis buy wane ne dagan na bàyyi moo gën waaye bul wax nit ñu ne dafa xaraam bul wax nit ñi ñu bàyyi ko danga nga koo ñaawlu mu indi la ay alquran wala hadis buy wane ne lii dafa war sax nga def ko ah su boobaa def ko su ko war a da ko war a def dégg pourtant yonent bi def na moom ba lu sa xol bi nanguwul rek bàyyi bàkkaar bi waaye loolu wax naa la kam koy wax ak mooy koo xam ne nii moom toll la foo xam ne nii lu xol bi nanguwul baaxut kooku moom soo ko indilee dafa war ak dafa nangam moom du la déglu moom ndem wóor na ko ne lii mooy lu wér ci yàlla xam ne ne dangaa jum rek dégg nga amma ku dul kooku nag buñ ne lii dafa warta sa xol nanguwu ko bàyyil da ngay jàpp ne loolu nga loolu sa xol bi nanguwul seytaane la jógee rek dégg nga yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sulh Hudaybiya dafa wax saxaaba yi nañ watu sa dëpp saxaaba yi ñoom bëgguñ loolu kon ñoom loolu loolu toq na seen xol maanaam dëpp gi neexul leen mais yonent def leen dëpp gi moo war ñu bàyyi lañ jàppoon ñoom dem fekki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon li toq sa xol su fekkee daf di loo xam ne nii am nga teg bu wane ne dafa war nga def ko nanga ko def xaraam gi bul ko bul ko faale dégg de ko defee noonu la ñetteelu xaal bi mooy <coughs> ngay sikk dara ci am mbir baax na walla baaxut amoo ci lu leer yow da ngay sikk xol bi jàppul xaraam gi jàppul dagan gi da nga sikk soo baa dala war mooy nga topp la borom xam-xam yi wax buñ daganalee nga daganal buñ xaraamalee nga xaraamal buñ jëfee nga jëfe buñ ko bàyyee nga nga bàyyi kon amatu am si nañ jël lii mooy seen cër ci hadis bi laajal sa xol yow nit ki sa xol bi bu fekkee dafa bañ mbir borom xam-xam gën laa feddali ne lii lu bon la bàyyil daf koo bañ borom xam-xam ne lu dagan la bàyyil rek ndax ndax ndax bàyyi lu dagan ngir bañ a dugg ci lu xaram dara nekkul ci waaye nag bul wax ne dafa xaram bul. aay nañu ñu def ko ñetteel bi mooy nga bañ dara sa xol ñu ne lii dafa war amal def ko booy sikk sàkk ci mbir mi it dagan naam daganul xoolal li ci borom xam-xam wax rek nga àtte loolu hmm? ñooy amatu naa si loolu mooy seen cër ci ci hadis bi yonent dafa ne fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamuun laaj leen ñu xam bu ngeen xamut comme que da ngay sikki sàkk sa xol day sikki sàkk di laaj waaye yonent wax gi mu wax ne istafti qalbaka laajal sa xol borom xam-xam yi nee nañ nekkul ne doomu aadama bu nekk dañ naan ko laajal sa xol ku mel ni saxaaba bii di waa bi sax ci bakkan bu set ak ci xam-xam bu yaatu kooku la ñuy wax ne ko laajal sa xol te kooku lu xolam bi nangu du dellu ci fatwaay mooy wëllu yàlla mu ñu ñëwoon démb ci hadis ba kooku moom teqale bii mu wax du moom moom lii la xolam nangu loolooy lu wér lii xolam bëggu ko loolooy lu xaram loolu la leen wax rek moom jeexam noppul amaa yow amatu naas bi sa cër ci hadis bi mooy loolu mooy lañ lañ teqale léegi. Hmm? nit ki ka nga xam ni tollul foofu ci wilaayatu kenn du ko wax laajal sa xol. dañ naan ko yow laajal borom xam-xam yi boroom xam-xam yi nga xam ne ni soxal jàpp ne wóor nañ ci xam-xam laaj leen nga jëfee seen fatwa dégg nga diri lañ la wax dafa wuuteeg la nga jàppoon sa xol parce xamoo dara loolu la alquran wax fas alu ahla zikri in kuntum laa taalamuun xam nga ne xam nga hadis bi dafay wuuteeg laaya jooju laaj leen ñi xam bu ngeen xamut kooku mooy kon ku xamut yonent daf ko woon na laaj waaye moom bu mu laaj xolam na laaj ñi xam ñoom xamut. bu dee xam nga nag nga yegg ci wilaayatu foo xam ne lu nekk sa xol rek noonu la yow laa jël sa xol moom la attaloo rek nga atte xam nga ñaar ñooñu bokkuñ hmm? waaye koo xam ne xolam mucc na set na moom yàlla dana def ci xolam furqaan leer goo xam ne ni ci lay xamee bakkaar ak lu dul bakkaar su fekkee mbir ñëw na yow sa xol gis ne lii lu baax la lu set la nga jàpp ci sa xol bu jàppee ne lu bon la nga bàyyi ko kooku nag dafa am ay nit xaasa ku yeggul foofu ne laaj boroom xam-xam bu jàppee ne bon la borom xam-xam ne ko lu bon la mu baax bu jàppee ne lu bon la ñu ne ko lu dagal la na ba bu jàppee ne lu bon la ñu ne ko lu war la na bàyyi lu bonam loolu sa dem jafi ko buy sikk sàkk na laaj luñ ko wax mu def kooku loolu mooy atteel am maa te waa bi bii nag. ku yegg ci maqama moo ko moom mbaa xam ngeen moo ba baax loolu la waxaat ci xadis bu ñaare bi albiru ma sakkanat ilay nafs watmaanna ilay alqalbu matmaanat ilay nafs watmaanna ilay qalbu ñaari maana yi daanaka benn lañ am na xadis boo xam ne daf ne ma sakkanat ilay nafs mbaax mooy loo xam ne ni bakkan bi dal na ci xol bi dal ci bakkaar mooy loo xam ne nii xol bi dalu ci jëlee nit ñi ubbee nañ la jëlee bakkan bi dal na ci waaye xool bi moom daru ci dégg loolu loolu yonent wax na ci benn xadis doomu aadama yàlla daf koo bind ci dëgg ak nangu dëgg loolu yàlla daf koo bindaale ak moom mooy lu yonent wax ne kullu mawludin yuladu alal fitra kuñ jur rek ñu ngi la jur ci fitratul islam dégg moo tax lu baax soo ci nekk sa xol bi day dal parce que lii lañ la mooñaale mais lu bon boo ci nekk rek yaa ngi ci waayew gërëmoo ko parce que mooñaale wuñ la ak loolu dégg su ko defee <coughs> euh, soo yeggee ci maqaama bu yàlla yi mag yi ma la waxoon toppal sa taqwa ragal yàlla gi nekk ci yow waaye bul topp fatwa mooy la lay borom xam-xam yi di ubbee su fekkee la la borom xam-xam wax dafa wuuteeg la nga jàpp sa bakkan bu leen topp ndax fatwa ak taqwa duñ benn ki lay fatwa ci zaahir lay xool ci lu feeñ njortoom la la wax wala lam gis amma yow mi nga xam ne nag yow taqwa nga yore ba yàlla may la furqaan mënoo sukkandiku ci kooku parce que yow réalité nga xam dëgg-dëgg mbir mi nga xam inna na laa yuxni min al xaq shay njort jotewut ak dara dëgg kii yàlla may na ko leeru gëm yàlla goo xam ni masala yi moom ci xolam la koy xamee kii nag moom ci góorgóorlam rek ci lay xamee masala yi ñaar ku si war a topp sa morom hmm? kële dégg ñaareel nag kii ma leen wax ne yegg na ci maxaama boo xam ne xam na yàlla xam yàlla goo xam ne masala yi daf koy leer ci xolam kooku na koy xamee mooy du wuuteeg mukk lu sariyaane dafa war sariyaane lii dafa war moom mooy dafa xaraam su ne dafa xaraam rek booy xool tegtali sariya yi da nga ci gis fenn fu sariya waxee ne dafa xaraam dégg nga koo xam ne yeggul foofu moom mën naa wax ne lii dafa xaraam tegtal yëpp ne lii dafa war su boobaa ku dafa war bàyyi lu xaraam moom loolu topp lu <coughs> lu lu luar le, Deng, hmm kon <coughs> bakar moy lu tok ci xol sa xol bi nangur ko euh, lu bax mbax moy lu tok ci xol sa xol bi nangou ko bu defee loolu jël ko muy balance bo xam ni ko peesee sa bop loy def rek xolal bu xol bi ne nga gis ne masala ya nga jangone la waaye waaye ngeen la bàyyi bu xol bi ne bañ naa masala ya nga jàngoon ne la dagan na bàyyi rek hmm? bu xol bi ne bañ naa masala ya nga jàngoon ne la dafa war damal def te nga bàyyi loolu nekk ci xol bi seytaane la lu mooy nga yegg ci martaba waa bi sax su boobaa moom li yonentu wax la ñuy wax duñ ci teg benn commenté istafti qalbaka laajal sa xol rek lu sa xol wax ñaareel boo xoolee ci gëstu ci téere yi loolu danga nga fay fekk kooku nag yombut moo tax teqale bi ñu ko teqal nii nga jàpp ci loolu moom mooy gën a wóor parce que ñëpp foofu lañ toll ñu bari foofu lañ toll. xadis bii nag yàlla war na fi karaamam yonent yàlla moojiza yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax waa bi sa dafa ñëw rek yonent ne ko xam naa li nga bëgg a laaj lii ngay laaj da ngay laaj mbaax wax ko lan mooy lan mooy mbaax hmm? Hmm? dégg Hmm? danañ ci jàngee ni lislaam dafay sant nit ki mu bàyyi mu bàyyi bàkkaar hmm. leeral na ko it ban balaas ci lay xamee bàkkaar mooy loo xam ne xol bi nanguwul ko dégg waaye danañ jànge ci hadis bi ni lépp loo xam ne texte ñëw na ci rek da nga ci war a topp yàlla ko yónent topp texte bu wër ñëw na dañ ko war a def da ko war a def moom la yàlla wax ci alxuraan maa kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasulu amran an yakuna lahum al min amrihim jullit bu góor bu jigéen bu yàlla bëggee moom du tànn li yàlla bëgg rek lay def waaye yàlla bëgg naa sama xol nangu ko lay def ne képp koo xam ne dem na ba xolam bi du ci nekk rek yàlla gërëm na ko kooku du du mukk lu xol bi du bañ mukk lu yàlla bëgg bañ yàlla bëgg rek dafa yëgul foofu kooku nag moom bu gisee lii yàlla daf ko waral te moom bëggut ko na ko dem defi dégg nga loo amul taxi nga xool borom xam-xam yi lañ ci jëfe woon nga di ko nga daal di ko jëfe su ko defee loolu mooy mottali xadis boobu in uriidu illa al-islaah mastata'tu wa maa tawfiiqii illaa billaah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib assalaamu aleykum wa